اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل قم الآخرة.
قد ذهبت أربابه muy juróomeel bi كل من سار على الدرب faaw nga gëm ne am na bis boo xam ne day ñëw boo xam ne lépp képp koo xam ne da nga faatu woon da ngay dekki sunu borom tabaraka wa taala daf leen di dekkal ñu jóge ca seeni xabru këpp xabroom nekkoon ci suuf nga xam ne dañoo gasoon suul ñaanal ko day génn ka tàbbi woon ci géej seey wala jën ya lekk ko foofaa di xabroom borom bi danaan ko génnal mu génnal ndax kat ka bindoon te bindul ci dara je daa jekki woon jekki rek ne kun mu daal di nekk kooku su bëggee delloosiwaat dana ko yomb lool kon ka nekk ca lakk ga lakk ba doon pënd naaw jaww joojee pëndam ba di naaw foofaa di xabroom yàlla danaan ko génnal mu génn ka jën wa wan noon mu ne ko génnal mu génn kañ suuloon ci suuf mu ne génnal mu génn yow ma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan bis ba nga xamee ne la ñuy génne ci xabru yu génniin wu gaaw palet palet di génn mel ne ay gunóor yuy génne ci suuf wala ca fa ñu nekkoon kon kenn ku ne fa nga faatu mujje foofu foofu mooy sab xabru bis boobu dana ñëw ñépp dekki sunu borom tabaraka wa taala dajaleen luñ mas a bind atte leen ci détail yu gudd nag yoo xam ne la fay xew moom bis la boo xam ne yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may ak mucc waaye du bis bu yomb bis bu jafe la waaye jullit bi dañoo sàkk ci moom mu gëm ne bis boobu mi ngi ñëw ndax ngëm goog yi muy gëm ne bis ba dana ñëw te yàlla dana leen àtte ci maandu lu waaye defoon ci lu baax lu mu tuuti tuuti danañ la ko fay loo defoon ci lu ñaaw itam lu mu tuuti tuuti da nga ko gis bis boobu yi jullit bi bàyyi ko xel mën naa jeexital lool ci ak dundam ak doxinam képp ku dem ba gëmatu ko nag wala ngëmam ci bis boobu wayaf moo tax muy mën a dugg ci yenn njaaxum yi ak lexóor yi doomu aadama ji su jëloon bis boobu teg ko ci kanamam bis bu set mu gëm ne moom fii mu jaar nii ci àdduna di liggéey diggante bu gàtt a gàtt la daanaka dara xaju fi dafa gàtt lool dara dara daanaka xaju fi day jéem a góorgóorlu jaamu yàlla nekk ci lu baax ba muy faatu rek fekk moom ci lu baax la nekkoon su ko xasee def rek borom bi tabaraka wa taala defal na ko tawfiq mu gañe waaye bis boobee ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala rek moo fay tax a mucc yàlla na sunu borom tabaraka wa taala boole yërmaandeem ak ndimbalam yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko waxe nee na kenn ci yéen du dugg àjjana lu dul ci yërmaandey yàlla ñi ne ko ba ci yow yow yonente bi yàlla bi mu ne leen ba ci man lu dul su fekkee ne yàlla daf maa yërëm loola la muy firi moo di jaamu yàlla yii ngay def du caagi ne mooy njëgug àjjana moo tax lan yadxula ahadunil jannata bi amalihi baa boobu ñiy gëstu ci xam-xam dañ ne baa ul muqaabala lañ koy tudde maanaam muqaabila amalihi du caagi ni lii nga doon jaamu yàlla mooy njëgug lañ la nar a fay àdduna lañ la nar a fay àjjana lu tax mooy li nga jaam li nga jaamu yàlla matul pay gi yërmaande yàlla moo la fay moo la fay dugal moo la fay saxal boo jaamu woon yàlla junni at yoo xam ne mooyoo ko fi lépp nga jaar ko ci siraatul mustaqim ba mu mat ëllëg ñu ne la àjjanaa ngi su fekkee dañuy kalkin kalkinanteeg yow sa kendalul àjjana suba ba ca ngoon dana yóbbu sa jaamu yàlla yooyu te boo tudd mat kon nga xam ne jaamu yàlla yi lu mu bari bari du njëgug àjjana waaye li itteel sunu borom tabaraka wa taala mooy sama jaam bii daal damaa am yu ma ko santoon am yu ma ko tere la ma ko santoon ma ngi ca doon kër kër yi la ma ko tere woon ma ngi ko doon bàyyi ba faatu na kon kooku am na sama ngërëm yeex na day dugg àjjana sax fa ba faw yàlla nu yàlla defal loola kon ak njëg nekkut foofu waaye la fa nekk mooy nga jëf li la war daal di yeyoo yërmaande sunu borom tabaraka wa taala ndax kat yërmaande yàlla yaatu na waaye ki ko yeyoo mooy ki doon ki ragaloon yàlla ba mu ne wa rahmati wasiat kulla shay lu mu ca teg fa sa aktuba lilladina yattaquun wa rahmati wasiat kulla shay nee na sama yërmaane ji yaatu na ba lépp xaj na ci biir waaye fa sa aktubuha danaa ko bind nag moom sama yërmaane jooji lilladina yattaquun ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñooñu laa koy jox loolu coobareem kon jéem a góorgóorlu bokk ci ragal yàlla ba keroog ngay dajeeg sa borom moo xam da nga fay dund fukki at wala ñaar fukki at wala fanweer juróom téeméer moo xam fan yi nga fi am nu mu toll nga góorgóorlu ci jaamu yàlla ak bàyyi ay tere loolee mooy dugal nit ki àjjana yàlla na sunu borom tabaraka wa taala jàpp na la lool la ca des mooy juróom-benneelu ponk bi mooy gëm dogalu sunu borom tabaraka wa taala su ko defee ngëm nga day daal di mat gëm dogalub sunu borom tabaraka wa taala gëm ne yii am sunu borom tabaraka wa taala moo koy dogal waaye du caa gi ni bindeef yi ñooy dogal bindeef yi moom dañuy jëf dañuy fàggu it ak di sabablu waaye yàlla mooy dogal te daa war a leer lool ci nit ñi da ngay gis ñaari nit ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk di xëy di sonn di liggéey amaana sax mën nañoo bokk lu ñuy liggéeyee kenn ki di am wërsëg keneen ki di des amul wërsëg maanaam kii ni wërsëgam di ñëwee bokkul ak kii ni wërsëgam di ñëwee kii day tuuru rek kii nag moom day toq toq toq ndànk-ndànk lu tax xanaa kii xëyul di ñaq ci suba ba ngoon kii xëy di ñaq suba ca ngoon ñu ne ah kay ñoom ñëpp dañu xëy di ñaq waaye kii li ko yàlla wërsëgale wërsëgale wu ko ki ci des wala lim ko joxagoon joxagu ko ki ci des ndax kat wërsëg na muy tuuroo firiwul ne kii moo ëpp ki ci des wërsëg sun borom daa bokk ci xikmaam wërsëg yi da koo dëppale ak ajal yi aajaal yi muy digg yi nga fi nar a am daa am diir boo fi nar a dund yow diw sàngam da ngaa nar a am téeméeri at te sa wërsëg nangam la toll kon nangam jooju mënuñu ko sotti benn yoon day méngoo ak at yi nga fi nar a am ñu koy toq toqal ndànk ndànk ndànk ndànk ba sa téeméeri at di mat nga yóbbu la nga moomam am koo xam ne diir bu gàtt la fi nar a am te wërsëg bu bari nag la nar a yóbbaale kooku faaw ñu sotti ko mu gaaw day ñëw rek tuur ñu ne ah diw sàngam moom nangam nangam nangam ab diiram jeex mu dem am nag ñoo xam ne dañoo boole wërsëg wu bari lool ak fan wu gudd lool loola day tuuru rek di wéy ba faaw am ñoo xam ne seenub dund dafa gàtt ba noppi seen wërsëg it gàtt non suñu borom day séddale na mu ko soobee day tafdil nu mu ko soobee moom suñu borom tabaraka wa taala nu ko soobee noonu lay tànne am ca xikma nag waaye lépp dellu ci li muy tudde al ibtila da lay nattu ci lu neex ak ci lu naqari lu tax ngir xool ndax yow mii muy sotti lu neex li da ngay da ngay sant wala da ngay xarab yow mi muy sotti lu metti lii ndax da ngay muñ wala déet soo muñee day ca ñu kawee ña nga bokk ëllëg yow mi muy jox xéewal geet soo santee ca ña muy jox xéewal ci ngay bokk ëllëg kon dogalu sunu borom tabaraka wa taala aju na ci wërsëg aju na ci aw fan nit ki munta farloo farloo farlu ba digg bi ko yàlla wutal mu dolli ci minute wala seconde yàlla nee na woon dana fi dund nangami seconde faatu seconde yooyu fu mu jeexee rek fan wa moom dem na daa feebaroon feebarut da nangam daloon na ko dalu ko bu waxtu wa jotee rek mu dem noonu la demee moo tax ñaata nit ngay dégg ñu naan faas ñu ne ah moo ne moom de fii moo moo fi doon julli nangam nangam gisoon naa ko démb dana wala ku toog di waxtaan ba mu yàgg ñu jékki-jékki rek ñu ne moom ndax day nelaw ñu seet fekk mu fàttali ko jëmm joo xam ne ak suba teel ci masjidu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab étudiant bu baax a baax ci suñ réewi Afrique yi la dëkkoon dañ daan ànd di julli si fajar ci masjidu rasul sallallahu alayhi wa sallam aadama la tuddoon rahmatullahi alayhi ak suba la julli fajar ba àggal toog jàng alquran dikk toog ci bidon yi def ndoxu sam-sam tànq ab kaasam yor ko di naan naan ba kaas bi jeex mu toog rek continuer noonu bi mbir mi yàggee ba yàgg ñii liggéey foofu ñu yor service bi ñi ñëw laal ko ni mu toog noonu rek mu daanu ñu seet ko fekk ndekete wuy ji na boroomam nga xool loolu diggante dundu doomu aadama akuk faatoom ke léeg-léeg nga gis ku julli su jóot tegee fa kon fan wi moom borom bi tabaraka wa taala da ko wutal digg boo xam ne fam yam foofu la yam du avance waaye du tardé kon wërsëg ak fan wér-gi-yaram lépp loo xam ne dafay gaar doomu aadama ji lu rëy wala lu tuut loola sunu borom tabaraka wa taala ci la jóge loolu nag pas-pas boobu bu ko jullit bi amee dana noppalu ci yu bari yu baree bari dana ci noppalu dëgg la borom bi da koo digal ne ko demal fàggu ji ndax jëmmi fàggu gi ci boppam kër-kër ji muy def bu sellalee moom jaamu yàlla la da ngay xëy di liggéey di sonn jaar ko ci yoon bi nga ko war a jaar kooku yaa ngi ci jaamu yàlla ñu ngi la ci bindal tuyaaba moo xam am nga wërsëg wala amoo wërsëg waaye nag wërsëg wa na muy dikkee moom sunu borom noppi na ca moo tax rafetal ko moo baax kenn ci asalafu saalex dañ koo laaj waaw yow de dañoo gis nga wakiirlu ci yàlla lool ba nit ñi xëccoo ko xuloo werante yeeg yooyu yëpp doo ci bokk ci wàllu wërsëg mu ne damaa xam ne sama wërsëg keneen du ko jël ku dul man moo tax sama xel dal moo tax dañuy wax ne bu fekkee xamoo yoon wa jëm ca sa wërsëg xamal ne sa wërsëg moom xam na yoon wi jëm ci yow foo jaar da ngay dajeeg moom noonu la ko borom bi tabaraka wa taala tëree ki nga xam ne xam na lool nag du jóg mukk di agressé doomu aadama ngir bëgg a am wërsëg du sàcc alal duñ ko dénk kees mu yóbbu ko du trian du wuruj du wax lu amut ngir bëgg a am alal yooyu yëpp da ci mucc parce que xam na ne moyen bi muy jëfandikoo da koy yàqal diineem te du tax mu am lu dul woon wërsëgam kon bunt boobu day daal di doon lu ko amal njëriñ muy gëm ne borom bi dafa dogal mbir yi tër ko ba noppi ca su ko defee la nga xam ne moom lañ def ci sa coobare nga koy tànnal sa bopp muy njub loolu mooy doon sa itte da nga mucc itam ci ñi nga xam ne ngir aar seen wér gi yaram day tax ñuy def lu yàlla tere dem cib jabar dem cib seetkat muy si ñoo xam dañuy seet nee nañ dem na sax ba ci rajo yi am na rajo yi ngay dégg ñuy seet naan nee na da nga na nga def nangam ne xam kii wax ku mu doon nee na nangam nee na nangam yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ki xëy dem ci ab xamkat muy kaahin ki nga xam ne day woote ne ab jabar la ku xam lu nëbb ki dikk ki ko dikkee rek la wax de waxul nga gëm sax la muy def wala nga ñàkk koo gëm waaye ki dikk fi moom donte da ngaa ñëw sax di ko seetlu ba xam li muy wax dëgg la am déet nee na kooku diisu ko nangul ak julli ñeent fukki fan wala ñeent fukki julli li ci ne riwaaye am na ci waaye ki nga xam ne daa ñëw nag di ko seet si ngir gëm li muy def ngir gëm li muy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooka moom faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kooku weddi na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki seqi ab jéego waaxu dem ci ab jabar ne ko dama bëgg nga seetal ma lii wala nga fajal ma lii wala nga defal ma lii kooka génn na ci diine lislaam sa yóbba mu tuubaat waxaat ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah duggaat ci diine lislaam su ko deful ma nga ceg ceddo yonent bee ko jàngale de muy lu wér kon ki xam ne yàlla dogal na mbir yi ba àggal te jabar bi munta def lenn lenn lenn lu dul lu jóge fa sunu borom tabaraka wa taala su ko jullit bi gëmee noonu wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah mënuñoo lor kenn lu dul daa fekk sunu borom moo ko dogal te it mënuñoo jox kenn wërsëg amuñu njariñ amuñu lor lu jógewut ci sunu borom waaw yow mi gëm loolu lu tax nga di ci def sa xaalis lu tax ngay seqi say jéego di ko yóbbu ci koo xam ne bu demee da lay lor léeg-léeg nga gis ci koo xam ne nee nañ ab xamkat la nee nañ ab jabar la nangam boo xam ne day jox nit ñi wërsëg boo dikkee da lay defal nangam da lay defal nangam boo dikkee yëg ne moom ci boppam moo gën a aajowoo wërsëg lu tax du ko defal boppam lu tax du ko defal boppam am na suñu benn mbokk moo xam ne waa ji daa ñëw taxaw di di di xool ñi toog ci jataay bi lan moo war a doon seeni aajo xam naa man de maa ngi yoo xam ne boo buñ la ko defalee daal boo boo boo wutee wii sax day yomb boo defee nangam boo defee nangam di wax a wax mu yàggal te tubéy jaa ngi xottiku ci wet yu nekk waa ji ne ko xanaa luy luy defar tubéy di nekku ci yu mel noonu nit ñi dañ cee war a yeewu ba xàmmee xam ne ki gëm dogalu sunu borom tabaraka wa taala wërta sàggan ba ku jóg ku nekk nax ko di am na fi waajoo xam ne dane woon daa yor luy tee ñu sàcc far moom ñu sàccub téléphone am ci ci ci kii bi loo xam ne boo ko boo ko yoree nee na kenn du sa kenn du la mën a sàcc ab sàcc du agsi ci yow fi mu ko doon waxee foofu la ñu sàcc téléphone portable am moom mu wëlbatiku di ko yëg kon yooyu faaw nag askan wi ñu ñu yeewu ci juróom-benni ponk yooyu daal ki ko gëm daa war a jeexital ci dundam yow mi gëm ne dogal bi ci loxo sunu borom tabaraka wa taala la dafa war a fés ci saw doxin kenn mun laa dugal ci loo xam ne day féeroo ak gëm goo gi nga gëm dogalu sunu borom tabaraka wa taala kon juróom-benni ponk yaa ngoog mooy mottali ngëm gi foofu nag doo wax ne doo wax ne léeg-léeg da ngay dégg ko juum ne ponki gëm yàlla waaye du noonu arkaanul iman bu ñu ko waxee mooy ponki gëm ngëm gu wér loolu gëm yàlla daa nekk ci biir yonent yi malaayika yi téere yi ba juróom benn yi jeex alaaxira ak gëm dogal bi yooyu su àndeeg la jiitu li ciy tegu rek mooy kàddu yi néew ñu wax ko te joxe ñu nodd mooy jullit bi xas gëm yooyu gëm na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko gëm da nga da nga bëgg nit ñu baax ñi nekk ci biir diine lislaam maanaam doo mën a bañ ku bon ko doo mën a bañ ku baax nit ki da nga koy bëgg kem ni nga xamee ne noonu la jàppe ci diine yàlla ji waaye da nga koy bañ kem ni mu wane gannaaw diine yàlla ji kon yow bu boobaa jëf yi ngay bañ waaye bañatoo doomu aadama yi ku jub daal da nga koy bëgg waaye ku dëng moom da nga koy bañ loola moo tax suñ bëggeel lay tàmbalee ci saxaaba yi ñoom ñépp da nga leen di bëgg xam ni ñii la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon ñii la yaroon la yàlla defoon ci moom di ko jottali ci ñoom la ko jottalee woon ci ñoom ñoom ñu wëlbatiku ci àdduna tasaare ko ba lislaam agsi fii mu agsi tey ba nuy wax loolu lépp ci effortu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la amee woon kon ñooñu faaw nga bëgg leen ñi leen fa wuutu di taabiroon yaag ñi leen fa wuutoog ñi leen fa wuutuwaat bépp boroom xam-xam boo xam ne mi ngi toog ci kaw suuf di tasaare diine yàlla ji te teg ko ci yoon wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon muy jàngale alxuraan ak jàngale sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooka doo am choix ci bëgg ko da nga koy bëgg il faut ndaxte dafa nekk ci loo xam ne mooy li yàlla akum yonentam bëgg kon xam naa lu mel noonu su xasee jiitu rek liñ bëggoon a def mu nekk muqaddima muy li ñuy jiital door a dugg nag ci atte yi liñ doon wax muy njàpp ma ak julli ga ak yu mel noonu ci jàngale ko ci anam goo xam ne yàlla mën naa dogal mu yomb ci nun jiital gi day jeex foofa kon daal aju ci wàllu ngëm moom ñu xam ne loolu mooy li ko gàttal lool ci ñaari jataay yooyu kii nodd mën naa nodd incha allah su noppee ñu jël ay minutes yu néew rek su ko defee julli mu jeex allahuma rabba hadi kon su amee ñuy laaj ci microphone bi ñu jiital ko door a tontu ñaari laaj yi tege incha allah
ba aar sa njaboot ala kula xaal li nga ciy def ci diine bi yëpp yàlla na ko yàlla def si téere jëf ñun fu ñu dëkk sorowul fii kon yi saas la ci ñun kon yàlla na yàlla aar la laaj bi ma laaj rek ca alquran la jëm mooy yu dabbirul amru ak fal mu dabbiraat ñaari baat yooyu daal bëggoon naa nga xaw ma leer ndax dafa xaw leen si man yu dabbirul amru ak fal mu dabbiraatul amru yaa ñaari yooyu daal bëggoon naa incha allah ma leer salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah loolu mën nañ koo tontu ndax day dugg ci bind bi jàlloon ndax danoo waxoon ne suñ borom tabaraka wa taala mbir yëpp ci loxoom la nekk yu dabbirul amr kooku mooy ki nga xam ne mooy settental mbir yi maanaam tadbiir buñ ko waxee mooy ki nga xam ne mooy mooy dogal mooy teg plan yi ba àggal door koo amal sun borom tabaraka wa taala moo yore loola al mudabbiraati amran ay malaaka lañ xam nga ne borom bi tabaraka wa taala li muy def léeg-léeg mu ne malaaka mi da koy def lu tax mu askanale ko malaaka mi mooy da koy def ci ndigalul yàlla loolu sun wax ji sax da ciy am da ngay dégg ñu ne ah diw sangam di wax dëgg yàlla tabax na kër gu baax de fekk du moom moo ko tabax du caagi ne moom moo ñëw indi ciment bi ak yëfi di tabax waaye ci ndigalam lañ ko tabax loolu suñu waxin da ciy am moo tax loolu yi muy laaj noonu bari na lool nag ci biir alquran borom bi tabaraka wa taala yoo xam ne léeg-léeg mu jëmale ko ci boppam léeg-léeg mu wéer ko malaayika yi wane ni ñoo koy def waaye dañ koy def ci ndigalam loolu moo tax mu askane leen ko waaye fekk ne cosaanul jëf ja ci sunu borom tabaraka wa taala la jóge noonu la cheikh naa ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla guddal fan bi te barkeel leen amiin yaa rabb
di ñaax sama bopp di ñaax ñi teewee dars yu mel nii ñu bàyyi xel bu baax a baax cheikh bi waxee ba pare lu muy tuddee suluk ñu bëree bëri ci yenn borom xam-xam yow boog ñuy tuddee borom xam-xam dañu ñaan aqida wala tawxid dafa nekk loo xam ne lu jaaf la maanaam lu wow la amul bànneex amul cafka waaye ku xam ñoo xam ne xam nañ ko bu baax a baax di ko jàngalee nga xam ne kon ay jikko moom moo ci nekk lim la wax boo xamee ne am na ay malaaka yoo xam ne ñu ngi bind kon di nga defar say jëf kon ñu bàyyi xel bu baax a baax côté boobu question bi may laaj nag mu ngi aju ci sànq bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biñ ko laajee ne kenn du dugg aljanna lu dul ci yërmande borom bi subhaanahu wa taala wala boog yërmande yàlla mooy dugal nit ñi aljanna indi nga ci benn taxe bu borom xam nga xam ne baa bi baa ul muqaabala la te am na yenn yax yoo xam ne dafay mel ni dañuy wax ne diw nañ dugg aljanna ngir seeni jëf comme yàlla nu ko tax xam udxulul janna bi ndax nan lañ koy mën a méngale ak nit ki dugg aljanna lu dul yërmande yàlla ak it xadiisu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon wala ibnu abbas ne mu ngi woon ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam mu waxee ne ndax xam nga àq yàlla ci jaam ñi mu wax ko lan mooy àq jaam ñi nag ci yàlla nee na mooy yàlla subhanahu wa taala duggal leen aljanna bu dee bokkaale wuñ yàlla nan lañ mën a boolee taxi yooyu yëpp jazakumullahu xayran waaw xam nga foofu li tax borom xam-xam yi ñuy xàjjale foofu bàyyi boo déggee ñu ne baaul muqaabala boo gisee mu ne lan yadxula ahadun aljannata bi amalihi kenn ci yéen du dugg àjjana ci ci jëfam waroom xam-xam yi ñu ne baa ul baa boobu nekkul baa ul muqaabala parce que bu dee muqaabala mooy fayantoo maanaam li nga def dong lañ lay fay loolu lu mat a xam la yeneen texte yi nga xam ne dañuy ñëw meen mbokk sax mi ngi koy junj fii ci xaw naa nuroog laaj boobu yi lu mel ne tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum taamaloon uristumuha bima kuntum taamaloon baa boobu dañuy wax baa us sababiya la baa us sabab maanaam ci sababus li ngeen doon jëf ci la leen yàlla dugale àjjana maanaam yéen a ngi am àjjana ci sababus li ngeen doon jëf waaye du caay gi ni muqaabila jëf ji ngeen doon jëf ñaari yëf yi bokkut la sabab si mooy lan mooy yow yàlla dala la woon jëfal bàyyil ngay jëf di bàyyi ba dee ñëw nga wuy ji sa borom yàlla dugal la àjjana ci sababus lan li nga doon def li nga doon def mooy lan mooy yaa ngi doon topp ndigalu yàlla di bàyyi ay tereem waaye ndax nag bu doon muqaabala dañuy wax ne ndax yàlla dalaa fay peese lu toll ne li nga doon jëf mu peeseel la lu toll noonu ci àjjana déedéet loolu dañuy wax ne wattul baa ul muqaabala yàlla amul muqaabala amul fayantoo goo xam ne dañ naan dañoo peese li nga doon jëf ñu fay la lu toll noonu lam lay fayee ëpp na ëpp na doomu aadama yépp lañ àndoon di ko jëf ëpp na la muy fayee kenn li muy fayee kenn ki ëpp na ko kon loola la am na fii kuy laaj mu ne li muy laaj sax mënees na ko tëdd neneen mooy yenn texte yi bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tudd léeg-léeg day tudd lenn ci ponk yi bàyyi yenn yi léeg-léeg ñu laaj ko lan moo lan mooy lislaam mu tudd tawxiid tudd julli tudd koor yem fa léeg-léeg mu tudd julli yem fa léeg-léeg mu wax lépp waaye dañuy wax ne texte sharia ngir nga mën koo dégg yow boole lépp yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag na mu doon jàngalee na mu doon jàngalee da doon def place bu ne mu jàngalee fa la fa yell léeg-léeg nit ñëw di laaj mu xam ne kii li ko gën a yitteel mooy wàllu tawxiid mu jàngal ko lu yem ci loola muy benn ponk léeg-léeg nit laaj mu booleel ko ci julli léeg-léeg nit laaj mu booleel ko ci koor noonu la ko jàngalee ndànk-ndànk ba lépp jeex moo tax da ngay gis ay xadis yoo xam ne dañ caa tudd lenn ci ponk yi du duñu la ca des parce que méthode jàngale ba la woon waaye ngir nga boole lépp nag yow faaw nga boole texte yëpp wala nga xool ba ci gën a mat ba tudd lépp nga jël ko noonu la ñuy jànge mbirum diine waaye doo ñëw taxaw ci kanam benn texte nga ne ah fii kat dafay wax rek ne shahadatu an laa ilaha illallah wa iqaamu salaa daal di yem foofu ñu ne taxawal julli ak shahada an laa ilaha illallah kon loolu mooy diine déedéet xoolal texte yi ca des lu ëpp looloo nga ca su ko defee noonu la ñuy déggee diine.
asalaamaaleykum wa rahmatullah ma bëggoon poser ay question ci dars bi weesu nga doon wax ci tawhid yaakaar naa ba léegi ci loolu la ñuy wax ma gis ne yaa ngi jàngale lu jëm ci tawhid muy ragal yàlla question bi ma ci bëggoon posé di laaj ba xam tawhid moom dañ koy judduwaale am mun nañ koo jàng ba mu nekk ci yow am dañ ciy yar nit ki rawatina réew mi ñu nekk nga xam ni booy jëflanteeg nit ñi ci wàllu liggéey surtout ci xaalis ngay gis seen ñàkk tawhid léeg-léeg ngay wax nit riba sax mu ne la luy riba wala may jëflanteeg nit ba mu yàgg mu ne la ndax yow man xiyaam sax am na yooyu yëpp daal bokk ci loo xam ni xaw a kii la daal mu ñu doon laaj loolu boo xam di ci sàkku ay leeral
wéetal yàlla wéetal yàlla ci boppam fitra la maanaam yàlla da ciy bindaale nit da koy bindaale nit ki juddu seen rajo bi daa mel ne dama tudd ah joxeetul de maanaam eh, wéetal yàlla borom bi tabaraka wa taala buy bind doomu aadama muy wàcc fii ci suuf wéetal yàlla lay indaale loolu mooy ne ci xolam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu mawludin yuladu ala alfitra képp ku juddu nee na da ngaa indaale pas-pasub diine pas-pasub gëm yàlla ak wéetal ko waaye nag nit ñi ñoo koy soppi fitratallahi allati fatara annaasa alayha dalika diinul qayim diine ji gën a jub ci la yàlla bind nit ñi indi leen fii ci suuf waaye nee na seeni waajur ñoom buñ juddoo ba noppi benn ñoo leen di bàyyi ca tawxid jooja dimbali leen ca ñu jëm ca kanam wala ñooy nekk ci ak ndëng dugal leen ca ndëng googee ñu soppiku kon daal li ñuy wax environnement bi wër doom aadama ji bu juddoo ba noppi loolu mooy participer ci orienté ko mu jëm ci leneen lu bokkut ak lam nekkoon waaye su fekkoon ne ni ko yàlla bindee rek dafa ñëw ñu yokkal ko dimbali ko ca kon kooku ku wéetal yàlla lay doon buy wax ne nag dañ koo bind ci tawxiid firiwul ne détails yi nekk ci biir tawxiid yëpp ak masala yi nit ki day juddu indaale ko ndax loolu ab xam-xam la boo xam ne des koy jàng waaye li muy indaale rek mooy ne yàlla moom kenn la loolu moo tax même yéefari màkk yi nga xam ne dañoo desoon ci ci ci fitra donte ñu ngi jaamu ay xërëm waaye boo leen laajoon ci rububiya muy xeetu tawxid wu jëkk wi muy kan moo bind nit ñi ak kan moo leen moom dañ leen wax ne yàlla moo leen bind moo leen moom loolu fitra fu ñu ko jëlee ci yàlla fu ñu xamee loolu yàlla moo leen ko bind moo tax wala in saaltahum man xalaqa alsamawati wal ard la yaqulunna allah boo leen laajoon kan moo bind asamaan ak suuf kon ñu ne yàllaa ko bind te ñooñu ñooy yéefari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeexal kon il faut nit ki ngir mu mën caa yaatu nag ba xam lan mooy diine ji dëgg-dëgg faaw da koy jàng yooyu ngay tuddit mu tasaaroo ci biir société bi muy nit ñoo xam ne ci ñu seen i jikko jikko dafa yàqu ñu seen i pas-pas yàqu loolu ab société mooy yàqu di dem ba àgg foofu nag rek ci la ëpp ci nit ñi mel noonu wala lu bari ci ñoom mel noonu su ko defee nag loolu dafay yokk responsabilité jàngalekat yi ak jottalikat yi ak ñu mel ni yéen nga xam ne borom bi tabaraka wa taala baaxee na leen ñu xam dara ci njub suñ jaxasoog ñoo xam ne dégg nañ ci ñoom yu mel noonu kàddu yi ku naan ndax yowmal xiyaam am na wala yu mel noonu nga taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la sharia sàkku ci yow mooy wax ak ñoom ci anamu kuy wax ak koo xam ne da nga koo yërëm laaye ko biir ba mu xam ne riba am na yàlla ci boppam moom moo xaraamal loolu xamal ko ne yowmal xiyaam bis la boo xam ne mi ngi ñëw te la shakk ci ak ñëwam xeet yu mel noonu jottali yooyu borom bi tabaraka wa taala mën na cee dimbale comme noonu ngeen di def sax léeg-léeg ngeen jottali audio yi nga xam ne mooy jóge ci borom xam-xam yi di ko tasaare muy dem ci nit ñi ñu bare bare bari ñu ngi weesu loolu tey te fekk jottali googu yi seen maas gi di jottali moo tax ñu dem ba àgg foofu ñu àgg tey ci wàllu xam-xam ak ci wàllu njub yal na ko borom bi gën a yokk beneen ba wala boobu rek la woon jaax na kenn rek ci yéen.
question bi ñu bëggoon laajte moom mi aju si li yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki nga xam ne dafa dem si jabarkat bi mu dem fa dong dina toog 40 jours yi nga xam ni borom subhanahu wa taala du ko nangu jaamu yàlla léegi euh, ma doon laaj jamono bii nga xam ni jabarkat yi léegi dañuy nekk ba si internet yi léegi si biir internet yooyu noonu bu fekkee ni yow de nit ki da ngay da ngay jéem a maanaam dafa am jabarkat bu fa dugg comme ça wax benn mbir bi nga xam ni xewagul léegi yow ngay jéem a gëstu ndax kii lan la wax ndax li mu wax noonu nga nga- maanaam yow sa jubluwaay mooy lan mooy ndax euh, ëllëg ëllëg bu borom sa li muy wax noonu bu fekkee ne amul nga nga xam ni kii nii ab maanaam du waxkatu dëgg ak mbir yooyu léegi dugg boobu ngay jéem a dugg si vidéo boobu di xool ndax kii lu mu wax ndax lan la wax ak loolu ndax loolu est-ce que day dugg ci cadre euh, li yenn sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ku dem si njabarkat day day euh, maanaam 40 jours kenn du ko nangul ndax loolu da ciy dugg question bi loolu la woon.
daa war a bokk ci sa pas-pas nga xam ne waxul dëgg maanaam di di gëstu ji ba xam wax na dëgg ak waxul dëgg loolu sikki sàkk la jabar yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf noo jàngal ne ay waxkati lu dul dëgg lañ da cee am ñoo xam ne nag dañuy jëflante ak jinne jinne yi dafa am ay yëf yoo xam ne dañ koo sàccoon ci ay xeeti xam-xam yoo xam ne ci yonente yi lañ ko sàcce bu ñu amee koo xam ne nangul na leen kéefër gañ yor euh, danañ ko ca mosal benn su ko defee bu amee benn boo xam ne bu ko waxee muy dëgg mu boole ci téeméer yoo xam ne du dëgg su ko defee ka koy dégg moom ñu ne benn bay dëgg rek la ñuy wër tasaare da ngay dégg ñu ne benn jabar kii de moom lu mu la wax du dañ lu mu la wax du dañ fekk benn yoon la mas a wax dëgg la ca tegu lépp dara du ca dëgg kon yoruñu ab xam-xam xamuñu dara jinne yi nga xam ne ñoo doon sàcc di leen jox sax xamuñu dara maanaam tuuti lañ xam lu bare bare bare la ca des xamuñu ko maanaam xëy bu ak lay ñëw te dikk gut sunu borom daa jagoo ci xam ko junne ya waroon suleymaan alayhi salaam nga xam ne ñuy junne xeeti afaarit ya gën a garaaw ci junne yi mu di leen liggéeyloo di leen yanuloo ay doj ak liggéey bu metti boo xam ne suleymaan taxaw na fi béréb faatu jàpp ci aw jàkkam ni taxaw faatu na bu yàgg ñooñu continuer di liggéey liggéey bu metti defe ne daa taxaw di leen contrôler te nekku bi mu demee ba ak max mala su tuuti su ñàkk solo ñëw nekk ci yatu Suleymaan wa di ko di ko di ko rew di ko lekk ba yat wa damm ca la Suleymaan daanoo ñi xam ne kon ndekete yonent yàlla Suleymaan faatu na waaw jinne yi bu ñu xamoon xëy bu kon loolu du leen dana leen dal noonu la ko alxuraan wax wa laqad alimatil jinnu an law kaanu yaalamuuna alxayb ma labisu fi alazaabil muhiin jinne foofa lañ xam ne ñoom ñi buñ xamoon xëy bu muy luy ñëw kon duñ sax mukk ci liggéey bu diis boobu ñu doon liggéey te nekk ki leen doon liggéeyloo faatu na bu yàgg bi bi mu daanoo rek lañ tasaaroo ñoom ñëpp kenn ku nekk daw dem bàyyi liggéey bi ñu doon liggéey kon jinne yey sàcc di jox jabar yi sax ñoom ci seen jëmmi bopp xamuñu xëy bu waxumala ak jabar bi kon yow jullit bi bul am sikki sàkk ci ne jabar bi waxul dëgg ba ngay dem di seeti naan ca internet ba ndax li mu wax fii dëggal wala du dëgg foo dajeeg lu jóge ci ñoom ubal te jàll ci leneen lu dul loolu bul bul bul ko jéem a xool bul ci jéem a xam ndax seytaane daa bari doole te mën nañoo sànni ci sa xol am lënt moo xam ne bala nga koo dindi kenn du xam foo koy dindee ci àdduna naam ñu jël laaj bu mujj bi incha allah.
ñeent fukki fan duñ ko nangu dégg naa nag bu la wóor na la ne nit ki du takk gàllaaj lu dul dafa dem seen jabarkat si li ma li ma yaakaar boo doon julli léegi ba gis koo xamante ne moom daf ko takk léegi si biir julli boobu léegi da ngay continuer julli ba jeexal wala da nga xam ne comme kii takk na lu mel noonu te gis nga ko fekk gisoo ko woon balaa ngay julli nga gis ko da ngay dagg julli bi wala daal si cadre boobu laa doon laaj
laaj bu am solo la laaj mooy ki takk gàllaaj du caagi ne ku takk gàllaaj rek daa dem ci ab jabar ndax xeeti gàllaaj yi dafa bari am na ñoo xam ne dañuy bind alxuraan di takk am ñoo xam ne dañ leen di bindal alxuraan ñuy takk te leneen jaxasoo wu ci lu dul alxuraan lépp lu dul alxuraan moom borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne baaxul di su ko takk waaye alxuraan képp moo am ak jooyoo ci diggante borom xam-xam yi ndax dees na ko takk wala di su ko takk la gën a dëgër mooy di su ko takk ndax yonent ba tëkkul saxaaba yi tëkkuñu jàngale wuñ ko kon ñàkk gee takk moo gën waaye nag diisul wax ne bokkaale la itam ba tax na yow boo gisoon ko takk ab téere te xamoo lii lu mu doon lay cosaan mooy as sitr bu dee julli mu wóor la ne kii takk na ab téere te xamoo téere bi lu mu doon yow kooku bu mu la concerné sa yoon nekku ci loolu moo tax sharia dafa am nu muy jàngalee noo xam ne nu am sutura la moo di doomu aadama yi lay cosaan ci ñoom mooy sutura loolu moo tax imaam ji taxaw fii di julli doone ah balaa julli nañ xool ba xam takk na dara ci ndiggam am déet kenn du ko sharia santaane wut loola bu wóoroon ne takk na dara sharia neewul nañ ko seet ba xam alxuraan wala du alxuraan moo tax li yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax foofu mooy baat bu sew la bu mat a xàmmee mooy diisul ko nangul ak julli waaye waxul ne julli ga du wér boroom xam-xam yi ci usul dañuy wax ne laa talaazuma bayna sixati wal qabul julli gi mën naa wér te diisu ko nangu kon ki taxaw di julli def na ponk yépp laab na def lépp jàng alxuraan ju neex nit ñi julli ci gannaawam kii ak julleem wér na waaye su fekkee def na loo xam ne day tee ñi nangul ko loola ci moom lay yem day bokkaale daa takk ay gàllaaj daa seeti woon ab jabar loolu lan la koy lor mooy duñ ko nangul ak jaamu yàlla moom waaw ndax loolu day baawaan ba àgg si ñu doon julli ci gannaawam déedéet ñooñu moom dañoo julli ci gannaaw julli gu wér moo tax foofu sixa la ñuy xool julli gi wér na képp ku julli ci gannaawam sa julli wér na ndax danañ ko nangul wala duñ ko nangul kooku moom mbiram la suñ ko nangulut it ña ca gannaaw moom mën nañ leen a nangul ndax ñoom mucc nañ ca loolee ko dal la talaasuma bayna sixati wal qabul du caagi ni fépp foo xam ne sixaa nga fa muy jaamu yàlla ga wér na dañ koy nangu du caagi ni fépp foo xam ne ñàkk a nangoo nga fa jaamu yàlla gu wér nekku fa déedéet mën nañ ko ñàkk a nangu te fekk jaamu yàlla ga wér na te jaamu yàlla ga su wéree képp koo xam ne roy na ca sa jaamu yàlla mën naa wér te su amul gàkk buy teeñe nangu sa jaamu yàlla kon danañ ko nangu kon loolu lu ma ta xàmmee la wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل